donc man je ngi dem et puis di vous wax comme d'habitude affaire bi suba souvent suba nañ continuer Euh, Alé Alenya, dafa feebar loolu ñoom xam nañ ko Pape Alé Niang évacué l'hôpital principal Papa Alenya, Jambar jàmbaar la Pape il veut se libérer ñaar mo am waxoon soit le peuple sénégalais le libère ou il se libère nous préférons mourir dans la dignité que de vivre dans l'esclavage. Pape Alenia, c'est un soldat. Pape Alenia, il ne se laisse pas faire. Pape Alenia, du yambar. Pape Alenia, du ragal. Pape Alenia, du nangu ñu fitna. du nangu ñu koy du nangu ñu koy tooñ ko takal ko tumal ko tëj ko. donc Pape Alenia comme il ngeen ko xamee mooy def faaytu boppam. comme dëddu ngeen xeex bi comme Nangulen leen libéré keneen Papa Alé libéré Bopam. il a choisi de mourir dans la dignité que de vivre dans l'esclavage moo tax muy grève de faim vraie grève de faim Douma lek, douma nan. ma naan léegi amatul di indi ay rapport di bind qui kii dara datu ko dalu ko du ma lekk du ne douma lek, douma du ma naan papa Alenya, pare na bokk daf ko pare wax na ko bind dernière lettre sànni leen ko gënal damay dem mais vivre dans l'esclavage, je préfère mourir dans la dignité duñ ma tëj ma di dox soxla bàyyi fi c'est un guerrier te man loolu laa gëm man lu ma gëm mooy leen ma mënul libérer Je leen libérer ma soit ma dee ku dee libérer na boppam nit bu yàlla lay la ko seqal bu dee libéré na boppam wala mu grève de faim moom mooy solution bu génne un prisonnier ci kaso yi surtout moom di journaliste d'investigation bu mu mën lu muy def ñu tooñ ko kan moo ko tëj mais wax nañ leen ko jabaru Macky Sall Marème Faye Sall moo tëj Pape Alé ci ay affaire ñàkk fayda la ko tëjee ay daf ma wax ci live naan man ma man jigéen bu yées laa jigéen bu bon laa Pape Alé ñaari fan la doon def ci mbedd mi bu mu génnee live bu mu def la lendemain lañ ko doon jëli mais moment boobu la kii di Macky Sall waroon dem Amérique ñu waroon ko dem jëli tëjaat ko ndax oyof sër moom moo leen yónni na leen dem leen tëgal ma ko parce que daf ma xas Je ne Ablaye Wade doon na toll fo xamni ne sax si doon négocier ak mom koko mom respecté ni jigen wala moom Ablaye Wade déglu jigen ni da doon déglu da déglu même Abdou Diouf sax jabaram da don da ko don amna yo xamni ne doon nañ ci toll jabaram di ko no bayil mu wala nangam mais Maram Faye mom mo tëj Karim Khoum je ne Cheikh Omar bu bon la Dis-moi, derrière, chaque grand homme, il y a une grande dame. Mais derrière chaque mauvais homme, il y a une mauvaise femme. C'est mon metti qui nga xam ne mooy jabaru Macky Sall di de OFC. mais mu le le Pape Alé Tu ci connais, tu ko un ci coups de colère donc Pape il y a un peuple qui est mobilisé ou libéré Pour que ko mënul moom day libéré soit ñu bàyyi ko wala moom il préfère mourir dans la dignité mais l'homme est dëgg parce que mënul talk ben est jabarou mbër gu oyof sër ne da koy tëj nii ci ay caaxaan lan la ko def du joxe point de vue du joxe idem jabarou Macky Sall mooy tëjaate moom bokk na ci jigéen yu gën a Afrique saoudienne. jant ku bon a ngi noonu caga la imbécile la xol bi ñuul la yor day tëjaate soit <laughs> vous les libérez wala vous vous restez là à constater il y a des gens qui sont là à constater ils font que des constats dañuy daw rek ñëw Pape Alé Niang japp nañ ko ñu jëlaat ñu ñëwaat Pape Alé Niang mi ngi grève de faim ay sénégalais ah, gars yi wara a dem xeex de toogaat a Alé Niang mi ngi hôpital c'est des constateurs quoi Fab Alé Niang hôpital principal dafa feebar bay bëgg a dee seen loxo moom du laal xeer seen loxo du for xeer seen seen loxo du for yat seen loxo du jóg du ñu dàqe du ñu dóor du ñu affronter c'est des constateurs quoi dañuy constater rek ñoom ñoom dañuy ñëw ñoom grave ñoom nii lañuy def seen loxo yi boot seen loxo yi di constater ah Pape Alé Niang de daa Pape Alé Niang mi ngi hôpital mais Pape Alé Niang mooy rey boppam pour se sauver de des griffes nooxóori day jàng soulever wu peuple day jàng xeex injustice peuple day jàng pare pour reyante pour la dal ci kee di moroomam di maasam du ñëw ci moom loolu moom solo Marème Faye Sall moo tëj Pape Alé Niang Abdou Karim Gueye bind na lettre joxe ne imam bi nga xam ne moo dagg affaire bi yóbbu ko ci Marème fay Marème fay moo ko tëj ki nga xam ni moom mooy Cheikh Omar Diagne moo ko tëjlu donc Marème Faye moo toog di tëjaate di ubbiwaate te loolu yàgg naa leen ko wax Samuel Sarr ba ko fi Macky Sall jàppee jouru tamxarit Marème Faye moo ko moo ko libéré moom moo ne ko demal nga ubbi ko donc Marème Faye muy tëjaate di ubbi waate Pape Alé Niang toog moom fu mu toog yor yaayam dafa feebar yaayu Pape Alé Niang jamono ji ma wax nii affaire bi da ko choqué dafa feebar Marème Faye mag foofu Pape Alé Niang yaay mi ngi dund yaay yaay yaay yàlla dafa def alhamdulilah yaay Pape Alé Niang mi ngi dund daf feebar doomam bi ñuy tëj nii te deful dara jàpp ko fekk ko këram jël yóbbu tëj peuple bi nii de di constaté mais Pape Alé Niang man mii bu doon man la ma rayante li may def nii am nattu ñii teg ma ko damay xool nan laa mën a def pour sauver wu am na pitax yu mel noonu bu leen xale rëbbee ba jàpp leen dañuy xaru te buñ doonee médd xale bi du leen lekk am na pitax yoo xam ne da leen doon jàpp ñoo ñooy pitaxu gor yi ñu ba xaru pitax bi xaru nii sa loxo seddu guy ñu ne la ni medd la rayee donc nous préférons mourir dans la dignité que de vivre dans l'esclavage Papa Alé Gorla, gor la garmi la soit ngeen jóg yëngu-yëngu am doole ci réew ba muy monde dépasser frontières yi ba dépasser océan ba dans sa globalité des centaines de milliers de personnes dans les rues au Sénégal en France au Canada aux États partout libérer le journaliste euh, d'investigation Pape Alé libérer libérer di jolli di jolli di jolli ba faire benn tolé international mënu ko mais un tel tel un ne man cette sorcière là camarade de Faisal là non du ma toroxal di ma une technique sama yaay ngi fay di souffrir samay jabar sama jabar a ngi souffrir samay doom mënuñu gis s'en baay je préfère mourir dans la dignité que de vivre à genoux légui nak constaté nañ am nañu constaté ñu japp Pape ale ci doole tej am ñu constaté ni Pape ale mi grève de faim di constaté waat ne Pape ale da feebar léegi bu Pape ale yalla yalla bu mu dé yalla ko yalla sam yalla yalla guddal fanam bu gënoon àdduna ñoo ñoo ñëwaat rek constaté Pape Alé de dee na yàlla na yeex mais ñoo ñoo ñëw de Pape Alé de génn àdduna laa ilaaha illallaah inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun hmm, yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aja ay waay waay ma kee bon ay ma toog fu ñu toog même si ces gens là mérite ñu xeexal leen mais ces gens là boo xool ci yàlla doo leen génn ci loolu parce que ñoom loolu c'est des constateurs dañuy constater rek ah def na lii def na lii def na lii dee na inna lillahi inna arapi arapi arapi te kii def loolu mi ngi fa toog dara changé wul waxoon naa leen DJ Badji dañ ko sotti te sa ba léegi li ma wax mooy dëgg DJ Pape Alé Niang yàlla na gudd fan yàlla na dox ci bàmmeelu Macky Sall Pape Alé Niang yàlla na dox ci bàmmeelu oyof sër yàlla na yàlla defal ko gudd fan ak wér mucc ak muccule yalna yalla yok dundum lol mu mucc ayib yalna pap Pape dox ba taxaw ni ci bammelu Macky Sall yal na Pape dox ba taxaw ni ci bammelu amin amin amin amin amin Allahumma amin mako ñaanal yalla yalna yalla ko yalla def yalna pap Pape dox ak njabootam bañ taxaw ci bammelu Macky Sall yal na ñoom Pape dox bañ taxaw ci bammelu Marème Sall ba jéggi sen ndax yàlla moom <laughs> moom mooy mooy mooy kullu shay'in donc lu ma leen mën a wax mooy lu ma leen waxoon Didier Badji <laughs> man bàyyi ma noppi rek Mollah cay Mollah <laughs> nee nañ génération bu ne yàlla dina wàcce quoi ab doomu aadama bu të të të të sonnal leen xeetu sonnal boo xam ni ñuy def lu neew te duñ ko mën a dara fekk yàlla moo koy génne du du sax sama du sax sama sama bopp du sama kàttan du sama mën-mën yàlla rek moo xëy rek na ma ne tabax ci biir na ma ayca ma nekk ci xare comme Ablaye Wade nu mu demee woon yaanaa maa ne war a génn taxaw kenn mënu leen téye ren yàlla am ñeneen ñu fi indi kenn du leen téye kenn kenn kenn doo leen téye ci benn niveau du mystique du saayir du baatin yàlla muy mooy yabal chaque gouvernement firaw na ay Moussa chaque gouvernement du firaw na yàlla day yabal ay Moussa ay Moussa yoo xam ne daf leen ngemb nag protéger leen téye leen sàmm leen Pape Alé Niang ci Moussa yooyu lañ bokk ak ñeneen ak ñeneen ma wax dara ma wax jooju day Macky dindeegu ko de dama ne Macky Sall wax ji sonnal na la yoog sa njaboot lépp la leen xalaat ci pexe àdduna def ngeen ko sottiwut te du sotti incha allah lépp nag ci saayir ak ci baatin ma ne ma jox la benn chance ma ne la Macky fa laay demee sangu ji nag ok ma ne Macky Sall li may wax déranger la mettina maa ngi lay yàqal et cetera jéem nga ma jënd sottiwut proposé nga ma àdduna li ci biir sottiwut jéem nga ma neexal sottiwut jéem nga ma jaay doole sottiwut mystique nga sottiwut ma jox la léegi chance ma waxoon na la boo ma génnelee kooru Dj Badji ma bàyyi live te wax nak sénégalais ñoma ma mané la loolu lépp sottul mais chance bi ma la jox mo gënu yomb Didier Badji c'est un gendarme d'investigation un gendarme des renseignements généraux mané la bo génné kooru Didier Badji ay famiyam taxaw ni xamé ni ki Didier Badji la ma bayyi live bayyi la wax de bayyi waxuma ay di ñëw di dem de bayyi gis nga chance bu ma la may ça fait bientôt un mois mënoo koo génne un mois mënoo koo génne parce que man dafa ko teg fu lu tax ma défier la dangaa jàpp Didier Badji sotti ko acide acide acide sulfurique bu nga jaxase ak laso sotti ko Didier Badji kooram bi rey ko sotti ko ko muy tàkk di tàkk di tàkk bu ñuul kukk ba jeex tàkk seey mu lekk acide sulfurique bi mélangé ak lasu bi ba nga def ci barigo bu sotti ko Didier Badji ba mu seey moo tax ma jox la ma défier loolu parce que dama xam ne doo ko génne di Badji un mois def na presque mois quinze jours ba léegi Didier Badji génnewoo wee weeyam sax mënoo ko génne <laughs> Macky dama la infiltré Macky dama la infiltré Macky yow dama la infiltre dama la défier parce que dama xam fu ma ko teg te li ma la may chance la boo xam doo ko doo ko mës a am moo tax bëri temps yee passé nga ngeen gis yónni gars yi naan ah am na benn corps bu ñu gis de nañ xool avocat mi ak mbokkam yi dem xooli ba xam kooku du moom mbokk yi ñoo ne oh gars yi Mollah wuy sama Mollah yow laay bi tey mu jeex Mollah waroon dugg ci loolu naan da ngay défier i sàll wuy sama Didier Badji gars yi nee nañ am na corps bu ñu gis de Mollah mbaadu moom man leen bu ñu gisee Didier Badji bu ñu gisee Didier Badji maa ko wax damay bàyyi bu ñu gisee Didier Badji gis nañ Michael Jackson. Didier Badji kooram bu ñu ko gisee gis mooy Michael Jackson mi ngi fi ñu dem ñëw gars yi ah lan la gisuñu tous kooku du Didier Badji duul <laughs> ay avocat ak mbokkam ne leen kaay leen Didier Badji dañ koo sotti acide sulfurique bu mélangé ak laso def ko ci barigo yóbbu yóbbu leen tubaabu jàllaaw foofu lañ ko dóor ba mu dee ñu daggate ko sotti ko acide bi ba mu seey Didier Badji kenn munu koo teg bët Didier Badji dañ koo sotti acide sulfurique ba mu seey te ba suñ jonn yàllay tey maa am dëgg man du ma président Macky Sall de di waat di fen man damay waat di ko teg ci dëgg kenn du ko génne maa ngi ñëwaat maa ne Didier Badji jusqu'à l'extinction du soleil ay mbokkam ay avocat am ay jegeñaalem ay am di jàmmam duñ ko teg bët duñ ko teg bët duñ ko teg bët Didier Badi a été assassiné dañ koo sorte acide sulfurique La ko muy ba tak di Didier Badi, dafa rouille ba tac. Didier Badi, dama jusqu'à l'extinction du soleil ba le soleil bi di ko le di lem suuf si dans le tech but Didier Badi, Dans le tech but Didier ba suñu man la may à 20h GMT dañuy def la continuité de opération Rebou di wax ni bonne fête bonne fête euh, joyeux Noël et à demain Inch'Allah. peace and love and I'm out man ma dem sangu ji dox samay soxla ak samay lëjjanti yarama la famille today concert buñ ma xamni man bokk na ci parrain yi gaay euh, au musée de la civilisation TRG show Taru rap sen rappeur yep nañ fa nek tous ensemble ñu sagal sargal ndaanaan melni man donc man la bok na ci ñi sargal ak ñi sagal mustafa di euh, m di Mustafa, bu Dabrens moy def show bobu yora les matadors les Roman, les Simon, les euh, Gaston, rappeur yëpp ñu ngi fa. génération ben les Degeti Awadi donc man la sagal foofu Awadi euh, ténor yi quoi ponkal yi Matador Degeti xam ma maa fa gën a sax booy ci sagal donc nee bolé mom mom Tafa bolé na ma ci ñimi sagal Tay, tay la TRG show taru rap Galsen au musée de la civilisation manam wetu grand théâtre taqaloog mom vous aurez un show inédit en son et lumière donc voilà mi ngi euh, tout il se peut me ñëwaat nak il se peut me ñëwaat dafa am ben ben manam. ndigal bi may xaar ci ab kilifa tay il se peut ma indil leen audio ci kanam ci kanam dina leen indil audio insha allah ci ndigalu amna na lu ma xam nga audio itam damay laaj ndigal amna ab kilifa gi ma laaj ndigal pour tay est ce que fête bi mën nañ génne benn ma ngi koy xaar bu ma nee waaw rek parce que dañu am ay kilifa ñi ñu jiite ci xeex bi di ñu tëñëx tëñëx pour bugg rek maa njëkk a génnee siiwu nangam naa man dara intéressé wu ma ci xeex bi li ma ciy xeex mooy dama bugg Sénégal changé point ay am ci tour intéressé wu ma maa ko def intéressé wu ma maa ko génne intéressé wu ma ça m'intéresse pas j'y gagne rien du tout damaa am ay kilifa ci xeex bi dama am ay njiit ci xeex bi dama am ay leader ci xeex bi donc kenn ci samay leader dóor naa ko message mu ma jógee message tak tak tak tak damaa bëggoon est-ce que am na audio mun nañ génne audio pour Noël yi mu doon joyeux Noël fête bi nga xam ni ñun ñëpp ko bokk ñu génne ko def ci cadeau parce que Noël c'est la fête des cadeaux c'est des bonbons des cadeaux donc dama bëggoon euh, ñu génne benn audio mu doon feetu Noël bi ñu jox leen ko cadeau donc maa ngi xaar kilifa gi. gisagul message yi bu ko gisee rek bana na ma bisimilah rek ñu dañ leen sànni benn tey pour spécial feetu Noël yi donc euh, maa ngi xaar ndigal dégg nga donc bu génnee rek incha allah dinaa leen reveniraat tey tey tey tey tey incha allah jox leen audio bu bu doy waar waay <laughs> jaajëf mais bu bu bu ma jotee ndigal li rek bu ma jotee rek naa def signe ne dans trente minutes live ma jotee ndigal li rek dinaa leen wax ne dans trente minutes live ah jaajëf xéwal bége bége bége xaar ma xool sax est-ce que est-ce que gisagum na ko est-ce que gisagum na message bi baal leen ma de may xool rek ba xam est-ce que gis na message bi bu ko gisee rek laa ilaha illallah yónnee naa ko message di ko laaj parce que bo rek ok non benn flash la def benn flash benn flash la def ah d'accord kon ñu xaar tuuti gars yi benn flash la def ñu ngi xaar rek dégg nga bu ñëwee rek ñu def ko de nga